dafa mel na guddi yonent bi guddi la bu nga xam ni mag ñi wax nañ ci lu nekk wax nañu ni ku ko teewee te sellal sa xol lépp loo xalaat boole kook cofeelam bu dee yiw yàlla daan la ko jox ca at ma kon nag li nu xalaat ci yiw yépp yal na yàlla jox nu ko ci at mi waaw lépp lu ñu ragal ci safaan yal yàlla jañal ñu ko ci barkeem a bàyyiwu ko fi nag gannaawam lañu ko sos Seydil Hajj Malik radiallahu taala anhu daf daan wax ni bidaa la ah bidaa nag dina ñaaw bidaa di rafet melne ni itam am na إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دابا ملنا غام من نتي دغو با جيختك واي نغيتم dafay laaj yu jëkk jiital nuyoo kilifa yi toog ndax ñoo moom gàmmu gi seen alal la seen ndono la tabarkalla tabarkalla bu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa doyewuñ ko rekk dem aljanna li ñu koy doye bokk na ca ci adduna ci barkeem ak ci leeram ak waxam nu dem ci ba xam fu ñuy teg sunu tànk loolu mooy li am solo ndax nee ñu ku amul kilifa seytaane di sa kilifa waaw ku amul kilifa seytaane di sa kilifa te moom nag yàlla dogal ci moom li mu dogal ci moom nonu ngeen waxe ci way wa abd muttalib min ba'd مر إلى فتاة زهرة ذات المجد والكرم مر على امرأة تدعى بفاطمة تبغي الممال إليها وهي لم ترم فملني عبد المطلب من بعد جي مو امبتيري بيب min moo ëmb téere bi yépp abdul muttalib maam la ci yonent bi mooy jur abdallahi mu jur yonent bi wante yàlla péncam du ñàkk ñett benn muy lu lu ne xàyyi ni cëpp ñu di ko tudde mujiza waaw ne xàyyi ni cëpp ñu di ko tudde mujiza bu fekkee xaqiiqa ba ko war a lal lal na ko ñu tudde ko mujiza su fekkee xaqiiqa ba ko war a lal lalu ko nag njabar lañ koy tudde waaw du yàgg nag dafa naan xay ni cëpp wane ni pénc mi kat gisu leen borom wante am na borom pénc mi wante am na borom waaw bi ko ñaareel mooy li ñuy tudde alxikma المعجزه والحكمه بنجمي امنا لنو في رب لنو في رب كي كوي رب رك كو خم بلكو نيت ني خم مسوت موم لنيو تودي حكمه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ويا حكمة يتم نتجو تي حقيقة بتجو تي حقيقة سامبل فيلوزوفي لا يدور آه. ñetteel ba mooy li ñuy tuddee al sharia mooy bale penc mi mooy tax nit ñee yaru mooy tax kenn du xuloog sa morom waaye ci kaw nag xaqiqam lalu ci suuf waaye bu xaqiqam laluwul ci suuf ما في الكتب الفقهية إلا الخصومات ورن ترك لي indi واو